benn waxtu jot na file ci makkaanu global télévision GTV am ah, waxtu leen dëgtal xibaar la ca gën a fës bokk na ci fas yéene ko faram-fàcce ci biir jotaay xibaar yi ak la am ca diwaanu AIBD di aéroport international bu Blaise Diagne ak nag ab saisie woo xamante ne amoon nañ ko jëm ci ab amphétamine ñaamoon nag li ni mel di nag diwaan ga nekk ca foofu dinañ ko leeral ci biir jotaay xibaar yi. leneen ñu fas yéene ko daal di yaatal ci biir jotaay xibaar ak nag yëngu yëgal ki nga xamante ne ay weer a ngi nii ñi di syndicat yi ëmb li nga xamante ñoo yëgeelkat yi nekk ci wàllum tra ci wàllum collectivité territoriale yi ñoom la ñu xam ne ne fas yéene ñoo daal teggi seen tànk yi xam ne li ne mel moo di Ndiaga Diop den secrétaire général ci biir jotaay xibaar nañ ko teewlu ci ay kàddoom ñu wax ci wàllum tàggat jaram ak tournoi bal gi ñu doon amal file ci diwaanu Sénégal ak ñi di lee diwaan nag daal di qualifié ci kanamu lii di APR bu Rwanda ci biir jotaay xibaar yi tamit lay doon ci yaatal yi la ñoo gën a fës li la ponk ñoo gën a fës nañu toftal ñaari pàcc xibaar ak léeg-léeg kay xëy fësali xibaar buur ñaar lante leen ñu tàbbi ci yaatal gi mbokki asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di jéggalu lu a door bi la jotaay xibaar doore ko nag nañ ko junjee woon te ndorteel ga ak nag li nga xamante ni moo amu ca diwaanu uh, ci aéroport international bu Blaise Diagne li nag di ay agent nekk nag ci bureau bu uh, douane bu aéroport nag ñoo daal di am nag ab saisi wu ñu def jëm càpp bocal woo xamante ni ma nga amoon lu tollu daanaka juróom juróomi uh, téeméer ci ay kilogramme ci li ñu dippee en fait tamine doon nag loo xamante ni ab drogue la woo xamante ni ko daal di nemmeeku ci ab colis express presse woo xamante fa lañ ko daal di dëxëñee woon jóge nag ci ab euh, réew Asie bi la nag produit nag mu ñuy daal di xam ne ni ma nekkoon nag jàpp bocal woo xamante ni daanaka dañ ko defaroon ba mu daal di yàññi daal di ko dugal nag ci ab li nga xamante ni moo di euh, colis boole ko cen naka noonu nag bi nag ñu defee nag lii di ab si ab ciblage ci euh, colis yi xool lan moo ca nekk nag lañ bët ko ci la nag ñoom ñii di agent wu douane ya nekk nag ca aéroport ba daal ko nemmeeku daal ko nag yóbbu ca laboratoire bu division bu police technique bu scientifique ñu dippee DPTS daan na confirmer ni rek li mi ngi jëm nag en fait tamine don nak lo xamantene ni bi di euh, division bu euh, police ba nek ca fofu moko ko di confirmer don nak ab opération de livraison wo xamantene ni euh, daanaka ña ngi ko amal ngi daal di surveiller nak mu daal leen mën permettre ñu mën a daal di nag gis bile jéeya doon en fait tamine boo xamante nag ñu ci taari teg loxo doon na nag ñeenti doomi aadama ñett nag daanaka nekkuñ ci biir réew mi waaye kenn ki nag ab sénégalais la doon loo xamante ne daan nañ ko nemmeeku ñoom nag daañ leen leen yóbbu ca fi nga xamante ni moo di tribunal parquet bu nekk ca diwaanu Mbuur ñu wax itamit nag ci leneen dem ba diwaanu diwaanub Tambacounda wax nag ci ki nga xamante ni moo di ministre gi dénk wàllum environnement ak lii di wàllum ak lii wàllum transformation écologique mi nga xamante ne dafa daal di rafetlu li nga xamante ne mooy effort yi nga xamante ne daal nañu ko daal di amal ngir jëm ci daal di xeex lépp lu jëm ci daal di euh, déforestation moom nag di ministre gi yees ñu dénk wàllu environnement ak wàllum transformation écologique ginnaaw nag bi mu amee nag tukkib nemmeekum ku njëkk ca nopp fi nga xamante ne ni moo Tambacounda da Ngom daal na nag sant gërëm waaye tamit nag ñaax bu baax a baax ñi nga xamante ne ñooy ndawal colonel Mamadou Guèye di inspecteur régional des eaux et forêts nekk ci diwaanub Tambacounda jëm nag ci xeex nga xamante ni ñoom ñu ngi koy xeex ak ñi nga xamante ne dañuy dugg ci àll bi di def nag su noonu di yàq alam gi ak itamit leen la ca daal di addu ñu nag bu ñu sukkas ñu ko nag ci ay kàddoom moom muy daal di xamle ni ma rek daldi wo ñom ñi nga xamante ñooy autorité yi ngir ñu daal di gën li nga xamante moy topoto li nga xamante moo di alam bi Daouda Ngom di ministre yi la ñuy daal di ay kàddoom kii ko daal taataan suñu daw la fa nek di Amadou Diallo. tay fi ma ci Tamba bima ma dem na inspection régionale des eaux et forêts visité naa aussi la pépinière régionale bi nga xamné ñu fay def euh, liggéey bu baax di produire ay plans yo xamné c'est destiné à la communauté fi ni nak nii ci forêt classée euh nga xamné ni dafa am euh, lu ñu fiy def lu am solo mom lañuy ñuy restauration écologique parce que forêt classée yi ñu am daf ci am yo xamné ni dafa bëri ay yaqku yaqku yu ci am. pour bañ lolu nak dañoo dugg ci benen phase moy dañuy jéem restaurer les forêts dégradées c'est-à-dire ñëw jëmbataat fa ay garab parce que bo fa jëmbataaté ay garab forêt bi waat kenn du xalaata.

les forces de défense et de sécurité ñu ngi les services forestiers Les services forestiers ñu ngi def ligue, mais euh, armée et la gendarmerie ñu ngi appuyé. di appuyer te dinañ ci def nous man pour les trafiquants de bois parce que mënuñoo bàyyi aussi alam bi ñu dagg ko yàq ko. ñu wax ci ñi nga xamante ni ñooy Sénégal gi ëmb ñuy liggéey ci wàllum collectivité territoriale gannaaw nak ay weer bi ñu nekk ci yëng-yëngal li ko war a nag mooy naxarlu li nga xamante mu jëm seen liggéey ak nag talof talof ak lañ cay jànkonte ci métit ñoom nag ñoo daal di naxarlu génn gi nga xamante ne nii seen jëwriñ gi daal di ko gi daal di na ko génn ñoom nag ñoo xam ne ni fas yéene ñu benn yoon daal di tegg seen euh, loxo wala boo ko daal di bàyyi seen grève gi féeg rek amuñ ci àpp saafara waral itamit nag ñu daal di sàkku ci nguur gi yes gi ngir daal daat daal di mën a fexe ba daal di joyanti seen secteur boobu waaye tamit daal di feral seen rongoñ kii di nag di Ndiaga Diop doon seen secretaire général daal na jëkkati ay kàddu kii di suñ ndaw dina leen jaay moo daal jokk moom ci téléphone ñu teewlu ko. jaaxle jaaxle la ñu am ci euh, lettre circulaire bi nga xam ne moom la ministre euh, des collectivités territoriales euh, pour ñu continuer wala service public bi ci ci commune yi. mom dafa am euh, euh, inquiétude si si situation bi nga xamné mo moo xew euh, bu préoccupante bi nga xamné mo xew ci ci ci ci ci centre d'état civil yi ba paré nak wax maire yi hein ak président conseil départemental yi ñu hein ben service minimum manam ñu liggélo euh euh euh ñi nga xamné dañuy grève ñu ñu ñu fexé nañu nuñu nu ñu liggé ministre Fofana ministre Fofana ministre euh Fofana wax dëgg yàlla yaakaar bi ñu amoon si moom moo nekkoon mu liggéenti lii nga xam ne mooy suñu suñu suñu revendication bii nga xam ne ni yàgg na mat na ñaari at ñu ngi ci daw ci ginnaaw mu recevoir ñu amoon yaakaar ne moom bu ñëwee dina ko dina ko liggéenti waaye deful loolu moom nag euh, xelam ak xalaatam mooy mu mu briser suñu suñu élan bi nga xam ne moom lañu am ci grève bi n'est-ce pas euh, mu nekk grève bu légitime Ah, ci kanamu kanamu loi bi moom nag ah, duñ ko bayyi loolu duñ ko bayyi dañuy continuer duñu bayyi noonu on va pas se laisser faire dañuy continuer xex def continuer suñu combat bañu am satisfaction ci suñu revendication bi looloo tax intersyndical bi décidé na reconduire le mot d'ordre ah, bi nga xamné ni 120 heures la ci altine bi 13 jusqu'au vendredi 17. ci Sénégal yëpp Ndiaga Diop jiite ñii di syndicat bi yëngu ci wàllum collectivité territoriale doon àdduna ak seen yëngu-yëngal nga xamante ne ay weer ni ñu koy amal leneen itam ñu fas yéene ko daal di eh, waxtaane jëm rek ci ki nga xamante ni moo di Mignane Diouf ginnaaw bi njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar fay saaku woon ngir ñu daal di dakkal bépp liggéey wu ñu amal ci littoral bi moom nag daal dina rafetlu li nga xamante ni mooy ndogal gi njiitu réew mi daal di jël naka noonu itamit nag moom muy daal di sàkku ci njiitu réew mi ngir mu bañ a daal di deltu gannaaw fexe rek ba daal di li mu sumb mu mën cee am ndam gën gorgolu mom nak mi ñaan juuf mo jité li nga xamanté wala bok moo di coordonnateur di forum civil social suñ ndaw li di ndé la ndjay joko nak mom ñu tewlu ko ci ay ñu am ci euh, lettre circulaire bi nga xamné mom le ministre euh, des collectivités territoriales. Euh, pour ñu continuer euh, voilà service public bi ci ci commune mom dafa am euh, euh inquiétude si si situation bi nga xamné mo moo xew euh, bu préoccupante bi nga xamné mo xew ci ci ci ci ci centre d'état civil yi ba paré nak wax maire yi hein ak président. Euh, nous avons suivi après. waaw njiitu réew mi ndogal gu jël euh, dakkal lépp lu jëm ci tabax ci li nga xam ne moo jëm ci littoral bi lu ama am solo la ndax bi leen ndogal dina tax ñu saytu képp koo xam ne am nga fa parcelle wala waaye di ko tabax mbala nga koy yeggale ñu seetu boo xam ndax euh, mbir mi jaar na si yoon ndogal bu ama am solo la daal daal li ñu war a def mooy weyal ko bu baax a baax bañ cee dellu ginnaaw waaw négociation de tekkiwut li nga xamante ne mooy reculer mun nañu waxtaan waaye nag man lima ma jàpp mooy dañoo war a wéyal ndogal boobu la ndax littoral mom moom ñëpp a ko bokk donc ay yenn doomu adam waruñ ko jël accaparé ko di ko tabax xañ ñenn yi li nga xamante seen àq la man daal li ñaax njiit bi mu jël na ci dem ba jeex képp ne suuf soosu nga fa am dal ni nga ko amee du anam bu rafet ñu bo ba teg la si yoon jël suuf si delloo ko ñi nga xamante ne sénégalais ndax suuf soosu sénégalais yi ci bokk yam may ñaax njiit réew mi daal mu ànd ci ak courage ak détermination dem ci ba jeex xam naa nag du yomb wante daal littoral boobu la daal dañ ko war a leeral bu baax a baax ndax nguur yi fi jaar jéemoon nañu waaye sottiwul waaye moom am na courage dakkal liggéey bi donc daal may ñaax même bu fekkente ne dina waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo fa am ay terrain na wayal li nga xamante ne mooy ndogal boobu la ba fexe littoral bi daal ñu fexe ba càmbal ko bu mu leer bu baax baax ndax ñëpp a ko bokk. celui a si on est hors de la loi, il faut donc accepter que la loi vous sanctionne que la loi soit rétablie. Médiane euh, Diouf nek na coordinateur lii di forum civil social don àddu ci dàkkal nga xamanteni ni njiitu réew mi sàkk na ko jëm ci liggéey wi ne ca littoral bi waxi nak ci leneen ci walum souf ba léegi ginnaaw nak bi li direction bu imp ak domaine daal di jëleen ndogal ngir dal di dàkkal lepp lo xamanteni mi ngi dem rek ci ay procédure domaniale nga xamanteni ngir rek dal di meuna a leñ a ciow li nga xamanteni ni ku nañ ko di ab ciow souf ca diwaanu Malick ak Tivaouane Peulh waaye nag lu nu mel bu ñu nag sukkandikoo ci kàddu kii di Ablaye Sow ne coordonnateur ñi nga xamante ne ñoo yeewoo ca cité bu ñu dippee cité Ablaye Thiaw moom nag jàpp na ne bi lee dakkal doonut loo xamante ne dana wéy waaye nag luñ ci mënti xew moom nag mi ngi woon ñii di nguur gi yees rek ngir ñu daal di gën a jëlaat seen i matuwaay jël seen responsabilité leer dañ ci ànd ak ay sotu ba bon rafetlu ko parce que ñun ñoo ko demandé woon ñun ñoo demoon euh, këru premier ministre demandé woon que ne pour que ñoom nañu dimbali ñu def arrêt immédiat parce que loolu mooy permettre ñu mën a càmbar suuf si xam kan moo fa kan moo fa nekkul lenn rek lañ leen di demandé ñu mu bañ a yàgg bon ñu lever mot d'ordre bi te ñun ñu delloo ñu suñu ay moomeel loolu daal lañ leen di xaar. bon problème Malika suuf la bu fa nekkoon bu yàgg parce que suuf la comme suufu Sénégal yi mais ñun suñu ay maam ñoo ko moomoon ñun ñu jënd toog fa parce que ñoom état bu Sénégal xam nañ ne suuf si Malika moom moo ko moom suuf soosu nag dañ ko jël jox ay promoteur promoteur immobilier Ni ay 15 hectares ni ay 20 hectares ni ay 12 ni ay 4 ni ay 8 Nous demandons ci demande juste moy ñun luñu occuper ñun 3500 familles Nous ñu suñu ay momel la ci des état nepp lu ko def baxna ñun amuñ problème mais l'essentiel, nous nañ suñu momel lool dal lañuy demander en tant que collectif nous lañuy demander le premier ministre lool lañuy demander le président Diomaye Bassirou Faye. bu buñ jugee diwaanub Malika Tivaouane Peulh dañu ñëw ba file ci ah, Mermoz Sacré-Cœur wax nag ci mairie bi nga xamante ne nii gulet mu daal di organiser li nga xamante mooy édition ab foire woo xamante ni ñu ngi ko jagleel ñii di soxna yi tam nag ba ñu choisir mooy li nga xamante mooy njëriñu foire doon nag loo xamante ni dafay daal di gën a mën a ñoŋal li jëm ci produit locaux yi waaye tamit li jëm ci wàllu wàllum développement maanaam suqale lii di euh, koom-koom ak i tamit li nga xamante ni mooy soxna yi ci li nga xamante mooy seen gox boobu di Sacré-Cœur euh, di Mermoz Sacré-Cœur naka noonu nag bu ñu sukkandiku ci kii di maire ba di Alioune taal moom nag dafay xam ne ni soxna yi am nañu wàll gu am solo ci li nga xamante ni moo di doxalin ci euh, société bi rawatina nag seen gox gañi euh, seen gox gañi euh, yeewoo waaye tamit nag li jëm yi tamit ci wàllum produit agricole ak lii di sécurité alimentaire ñoom it soxna sa ña def ay jéego yu am solo dañuy teewlu nag moom yi nga xamante ne moo di maire bi kii di lamin Diédhiou di suñ ndaw moo taataan ay kàddoom ñu teewlu ko muy foire Mermo Sacré-Cœur la première édition boo xamante ni dafa am thème central ko la foire un outil de promotion des produits locaux et je pense que ça c'est une vision qui a été déclinée li nga xam ni mooy mairie Mermo Sacré-Cœur nga xam programme autonomisation des femmes de la commune de Mermo Sacré-Cœur l'autonomisation économique Nous dafa am que nous, ñun en tant qu'exécutif euh, local on avait cette obligation morale d'accompagner les femmes parce que lii c'est un processus processus bu ngi commencé li nga xam ne def nañ ko en terme de formation li nga xamante ni ñaar téeméeri jigéen ñu commune Mermoz Sacré defal nañ leen formation ci céréales locales ci transformation de fruits et légumes jàngal les ni de defee saabu jàngal leen ni ñu defee eau de javel jàngal leen ni ñu liquide jàngal les ni de defee pâtisserie jàngal les ni de defee teinture et loolu yëpp moom la capitaliser woon bi ñu paree formation par dañu ah du ñu yem foofu suñu jigéen ñi xam ne ne ay jàmbaar lañu il faut ñu gunge leen moo tax mairie bi dégagé quarante millions jox ko jigéenu euh, les associations de femmes ak les GIE pour jàppale leen pour gunge leen pour li ñuy def mu gën a ñoŋ loolu bi ñu ci paree ba pare ñu ne ah du ñu yem foofu dañuy organiser foire bu mag lépp li nga xam ne plus de soixante quatre associations de femmes et de GIE bu commune alxames gi juróom-ñeenti fan ca diwaanu Mer ca diwaanu Mermoz ca maison d'édition bu Jim Sane ci la ki nga xamante ne ni moo di Felwine Sarr daal di nag fës-fësal li nga xamante ne mooy téere gi mu daal di bind dippee ko bu di sëmm et né à di nag ab téere woo xamante ne nii lam cay wax mooy wàllu mbëggeel di bëggante nag waaye moom wax ci beneen anam jàpp ne nag ñooy wax ci li ni mel ci wax ci anam gu daal di positif rek maanaam la cay neex rek la ñuy wax waaye moom nag dafa jàpp ni li jëm ci wàllu mbëggeel am na tamit ay gàllankoor ak yeneen itamit li ci ànd wax waral nag ba moom mu daal di bind ab téere ngir daal di ko fësal moom nag ab bindkat la waaye tamit ab wéykat kii di suñu ndaw li di Mansour Diassé teewoon na fa ñu teewlu kaakaay leeral xames ji juróom-ñeenti fan ci weeri mais di bés biñ jagleel xalaat ak partage fale ca maison d'édition Jim San ca Mermoz Felwine Sarr nekkoon maître de lieux doon présenté livram bi nga xam ne mu ngi tudd bouddhisme mu ngi juddoo fale ca kalobaan ci kanamu ay xaritam am si jàmmam ak mbooloo mu ñëw di ko teewlu ci bilay occasion bindkat boobu la nga xam ne bind na ay œuvre yu bëri tënkal nañu li nga xam ne moom la dëxañ ci boobule livram maa ngi bind benn xam nga téere xam nga bi

faram-fàcce quoi mooy li mu xamal li xamal li ci xaw a ñagas. bindekat bi indi ay leeral ci lu tax mu tànn titre bi nga xam ne mooy bouddhisme bi mu ngi juddoo fële ca Colobane te ni jàpp ne titre boo xamante ne la daa xaw a jéggi dayoo. non loolu loolu yëfu bindkat la mooy mooy bindkat mun na jël benn mbir xam ma dëkkale ko feneen mooy mooy bouddhisme mu ngi jógee Inde waaye li nekk ci biir mooy leeraayu xel mooy gis-gis bu yaatu yaakaar naa ñi dëkk Colobane ak liñ ak ñi dëkk foofu. am nañ am nañ gis-gis boobu donc am na sañ-sañ ci ci xam mu bindkat bi bi ma nekk ne lii de mu ngi juddoo fay waaye man maa ngi koy xam dëkkalee fii loolu. ci beneen wàll Felwine Sarr ñu xam ko ci engagement politique am ak prise de position am dellusi na si erreur yi nga xam ne nguur gi passé defoon na ko fi. li ma ci gis daal mooy ñetti at yi métti woon na lool Sénégal mooy dund nañ fi loo xam ne gëj nañ ko dund wala wala mësuñ ko dund. mooy li ñu owee état de droit xam normeelu justice normeelu ñu jël ay doomu aadama yu bëri xam te tëj leen ci xam kaso bi jël leen di leen di bundu xatal loolu yëpp ngir xam ma xam bañ a xët di xëtub tàggat yaram ak li ñeel wàllum basket ak tournoi bal gi ñu amal file ci bu Ndakaaru ñii di lee galab ñii di lee gabalu diwaa diwaan daal nañu diwaa diwaa euh, duwaan daan nañu qualifié ci huitième de finale yi ginnaaw nag ñu ndam lu rëy ci kanamu nag ñaari njiiti ñaari njiiti réew yi bu Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar fay ak ganam gi ko daal di gane si woon di Paul Kagame ñoom nag ñu ngi dóor ñi nga xamante ñoo di waa APR bu Rwanda ñii di waa douane am lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti poñ ñii di waa APR am lu toll ci juróom fukk ak ñeenti poñ war a rek bu douane daal di qualifié ci play off yi ñu fas yéene amal ci diwaanu Kigali Massou Dia si ay leeral US Monastir ak AS Douane am nañ seen ticket ci playoff saison 4 bu basketball Africa League bu war a amee fale ca Rwanda xale yi ma ma paa bi dañoo am ndam bu yaa ci kanamu l'armée patriote rwandaise di APR juróom-ñaar fukk ci ñeent fukk ak ñeent ngir mun a bokk ci final eight bi am fële ca Rwanda match bi leen nag moo nekkoon njeexteelu juróom-benneelu journée bi ci conférence Sahara bi nga xamante ne ñii di waa Douane dañoo am ndam seen diggante ak équipe boobule di APR bu Rwanda nga xamante ne dañ kaa dominer ci quatre temps yëpp ci quatre bu njëkk bi ñii di waa Douane ñu ngi am ñaar fukk ak ñett Rwandais yi am fukk ak juróom-ñett si ñaareelu quatre bi waa Douane ñu ngi am ñeent fukk ak ñeent Rwandais yi am ñaar fukk ak juróom-ñett si ñetteelu quatre bi ñu am juróom-benn fukk ak ñett Rwandais fukk ak juróom-benn ca njeexteel ga Douane nga am juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ñi di waa APR bu Rwanda am juróom fukk ak ñeent. ñii di waa douane nag dañoo jël seen revanche ndax ci seen match bu njëkk ba tombé woon sa ñetteelu journée ba waa douane dañoo ñàkkoon ci kanamu Rwanda yi le ndam bi le nag tax na ñi xamante ne waa AS douane ñu ngi nekk si ñaareelu place conférence saara bi ci ginnaaw équipe Nigéria bi di Rivers Spurs nga xamante ne ñu ngi am ñeenti ndam ci bi la conférence waa douane nag ñu ngi nekk ci kanamu US Monastir ndax ku ci nekk mu nga am ñetti ndam waaye ñi nga xamante ne ñooy waa douane ñoo leen raw ci goal average particulier waaye nag li gën a fës ci ndaje bi le mooy ñaari njiiti réew yi nga xamante ne mooy Bassirou Diomaye fay ak kii di Paul Kagame di njiiti réew Rwanda nga xamante ne daa amaloon ngan fii ci Sénégal ñu nga woon ca match boobale diggante jeunesse patriote rwandaise di APR ak kii di AS Douane bu Sénégal ñaari njiiti réew yi nag ba ñu see sa saal boobule tatagal nañ leen teeru nañ leen ak tàccu ñuy félicité les gabalu ñoom di waa diwaan daal di ñoom di waa diwaan daal am ndam ci kaw APR wax na ki tamit ci tàggat yaram ak lii di IF trophy IHF trophy 2024 lii nag di euh, Sénégal fas yéene daal di dem ngir daal di li nga xamante ne moo di trophée bi gannaaw nag bi ñu ndërmeelu caatum 2022 ci kanamu lii di Guinée bile nag trophée ñi ngi koy amal jagleel ko ndaw yi nga xamante ni ñi ngi daal di am seen at toll ci fukki at ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki at ñoo koy fas daal di jongante Anda ko nak senegal fas mom it dem ngir daldi jeli jëli ji li nga xamantene moy trophée bi bi mu daldi di don euh, na objectif bi nga xamantene li di fédération sénégalaise bu handball dal nañ ko euh, définir daldi ko yaatal di wax rek ni nopi nañu ci anam yépp ngir daldi dem jeli wat ndam li ndiwaat ko fi ci Sénégal leer gi dañ ci andak euh, ki di sambu Biagui semaine bi semaine bi lañ dugg ci préparation proprement dit pour ñu dem ci compétition bi jongante bi ñu war dem Mauritanie mais li jitu semaine bi aussi amon na ñaari stage yu defone mais yoyu c'était pour ñu xol xalé yi tambat len mën ci jël ñi nga xam ñom lañ soxla pour yobul len nga ci jongante ba wa yalla def na nak ci tan nañ fukk ak ñeent fukk ak juróom xale lañ toll bi ñu waté fi aussi dañu wañ woon kenn mais ci bi préparation bi aussi def nañ na tangat nañ xalé yi ci vraiment ci li yaakaar ni loolu la ñuy fekk ji euh, foofu ci Mauritanie. xam nga tournoi bi zone 2 la US Trophy zone 2 la en général huit juróom-ñetti équipe yoo xam ne la presque ñoom ñooy faral di daje foofu mais ren foog naa ne am na benn équipe bu ñëwul muy Cap Vert mais si juróom-ñetti équipe yooyu en général Sénégal Guinée Cap Vert ñoom doon sorti ñoom doon génn ci loo bi waaw tey ñun dañoo jàpp ne ñun suñu principal adversaire Guinée la quoi. parce que moom moo ñu détourné en 2022 ah dañoo bëgg a dem fële Mauritanie pour récupérer loo xam ne vraiment